ba ne Sénégal am na indépendance ak léegi ay at yu bëri la booba ak léegi nag réew mi di sunu gaal mu ngi dund loo xamante ni daanaka booy xool amalul kenn njariñ njariñu Sénégal moo di woon ñu ànd nas ay pexe ngir génn ci ndool gi ñu nekkee li ñu nekkee ci jamono ji neexul kenn te ñu bëri ci askan nag jàpp ne nguuru Macky Sall moo ñu ko teg ndax jàpp nañ ni itam la ñu leen doon doyee motewuñu ko loolee nag waroon a tax bu askan wi am mateef bu mat sëkk waaye daa mel ni jafe-jafe réew mi yitteelu leen loolee nag bu ñu ko waxee ku nekk am nga ci ab cër cër bu njëkk bi dañu koy jox suñu ay njiit njiit yoo xamante ni seenu bopp rek ba tax na lii fulla ak fayda duñu ci dox seenu doxalin mooy seenu yëfu bopp dong bàyyi askan wi ak seenu bopp bopp nag bu sa borom deful ndox dafay yomba nax nax boobee nag la ñu dëkkee askan wi askan wi nag fi mu ne nii yeewu daa jot ndax ci jamonoy Senghor ak léegi daanaka nax bi moo ngi fii fii ak ëllëg lu ne xaj na fi ba tax na nag ñu war a xam ne ana ñan rek ñoo ñu bëgg suñu gaal gi teer fu baax lu ko moy lu ne mën naa xew ci réew mi réew mi nag ci jamono ji moo ngi saxaar saxaar suñul kuku te kenn nag bëggul saxaar soosee tàkk ba tax na nag ñu war a am dal ndax itam lépp ci dal dong lay mujj ñëpp a tiit wala boog ñi bëgg réew mi ñoom dong ñoo tiit réew mi nag ci guddi yile ñaari xaaj la fi mu ne nii ñi fare ak nguur gi ak ñi fare kuje gi ku nekk yaa ngi wax li dal sa xel waaye nag ñi war a wax dëggantaan nag waxuñu wala dañoo ragal a wax wax ji kay mooy ku nekk nag yaa ngi ragal ne boo waxee ñu tam la dëmm kilifa diine yi porteur de voix yi musiciens yi sportifs yi ba ci influenceurs yi ñoom ñëpp ne tuqus te moonte day amaana bu ñu teelu na artuwaay politique yi jafe-jafe mun naa am ci langue politique yi langue politique di fi mu ne nii areenam am na sax loo xamante ni si daf see dugute bokku ci loole mooy fitna fitna munta weesu bës bu yàlla sàkk baat bi ngay gën a faral dégg ci réew mi rek mooy taal réew maay laaj ndax baatu taal réew dañoo xamul li muy tekki ndax bu ñu taalee réew mi defu doom loolee day mën nañ see bañ a yegg ndax réew mi kat du réew baayu kenn kon ku nekk war nga see waslu àq ba jàmm sax dàkk ci réew mi ñi jiite bañ a def loo xamante ni si mën na taalub réew ñañu jiite nag di kuje xam ni nag taalub réew joxante loxo liggéey jëlee fi li fi nekk ndéem jàpp ngeen ni mënuñu dañoo tële.